nouvelle bu neex la askan bu Sénégal yeewoo ci bésu tey bi mu nekk nag ay xibaar yu jëm ci wàllum électricité fii ci diwaanu Sénégal maanaam nag wàllum courant bi gannaaw rek dogal bi nga xamante ne Banque africaine de développement di badaad daal koy jël ba mu tranché ca mbir moomee nag mu nekk xibaar bu neex ñu jaarale ko nag ci projet bu ñu di 17 PAO bokk ci projet énergétique yi nga xamante ni ñoo gën ëpp dayoo ci àdduna bi ci programme boobee nag région bu Sahel bokk ci dëkk yi gën a leer ëpp lumière ci àdduna bi ndaxte nag zone la boo xamante ni ñii di investisseurs yi dañ ko taamu bu baax a baax bëgg nañu nag taxawal fa benn centrale solaire boo xamante ne bokk na ci gën a màgg ci àdduna bi te nag fukki dëkk ak benn ñoo ko daal di sikk ñu mën cee tudd Burkina Faso Tchad Djibouti Érythrée Éthiopie Mali Burkina Faso Niger Nigeria Sénégal ak réew mi nga xamante ne moom mooy Soudan objectif bi nag dañu trente lu toll nag ci dix gigawatt yoo xamante ne wàllum énergie solaire lay nekk ngir nag mën a jox population boo xamante ni ñu ngi ko xayma ci deux cent cinquante millions de personnes yoo xamante ni jàpp nañu ni nag bile électricité dina leen soxal bu baax a baax ñu duppee ko nag li nga xamante ne moom mooy projet Baobab jàpp nañu ne li nga xamante ne moom mooy bile projet dina tax ba ñu jotandi ci wàllum énergie stimuler itam li nga xamante ne moom mooy wàllum développement économique bu région bu Sahel. ak nañ nag baat daal dina doon approuvé projet bu ñuy woowee projet d' interconnexion électrique boo xamante ni deux cent vingt cinq kilowatts la woon mu ndax nag digg Mauritanie ak réew bi nga xamante ni moom mooy Mali projet boobee nag nee nañu dina yombal li nga xamante ni moom mooy importation annuelle boo xamante ni mën nañ ko ma ci six cent gigawatts d' électricité yoo xamante ne dañ koy mën a renouveler digg Mali jàpp fa nga xamante ne moom mooy Mauritanie dina yokk nag bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy accès ci réduire li nga xamante ne moom mooy émission de gaz à de serre financement yooyu nag maanaam jógug bile projet nee nañu nag dañu jël fonds climatique internationaux yi ak koppar yoo xamante ne baat daal dina koy joxe boole ci yeneeni koppar yoo xamante ne mu ngi jógee ci fonds pour l'énergie durable fii ci diwaanu Afrique loole lépp nag ñu mën ko xayma ci cinq cent millions yoo xamante ni dañ ko daal di nag jël séddale ko ci ay rëkk yu bëri yu nekk ci diwaanu Afrique nee nañu nag koppar yooyu fukki donateur ñoo ko joxe maanaam nag ko génn gën nag mën a jàppale Afrique ci li nga xamante ne moom mooy bii projet jamono jile nag di set paw am na lu toll ci fukki projet d' investissement yoo xamante ne nag fukk ak juróom ci ay opération d' assistance technique nee nañu nag fukki dëkk ak benn yi nga xamante ne ñoo soxal bile le projet juróom-ñaari daan nañ leen di ciblé tax na sax loolee moo waral médias internationaux yi daal di félicité ñi nga xamante ne ñoom ñooy banque africaine de développement ci li nga xamante ne moom mooy bile projet journal bi nga xamante ne moom mooy Finance Time moo ko daal di fësal. loolee lépp nag li ñu ci jublu dañu fexe nag ba bëgg réduire li nga xamante ne moom mooy dépense yu jëm ci wàllum combustible fossile fexe nag ba xeex wàllum déforestation ci diwaanu Afrique fexe itam ba daal di nag répondre ay questions énergétiques yoo xamante ne dafay gën a tax ba. continent africain bile daal di ñooñ ca kanam ci jamono boo xamante ne nag fii ci diwaanu Afrique réew yu bëri jotanduwuñ nag li nga xamante ne moom mooy wàllum électricité di seetu paw nag nekk projet boo xamante ne jàpp nañu ni wala sax ñu am yaakaar ni nag dina fexe ba jàppale réew yu bëri ci diwaanu Afrique ñu jotandi ci li nga xamante ne moom mooy wàllum électricité